واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم bisimilah kon ñu woy rek ci bind yi daara ji daaray daarul maarif al islamiya bi waa télévision GMT Grande Mosquée de Touba di amal daara muxadamatul xidma noo ngi dem ba tey ci fàttalente tey ñu wéy ba léegi ci bind alfiya xulaasa defe naa bind bi ñu weesu woon ñi ngi yemoon ci ñi ngi woon ci isim yi ñu binaa yi ñu li arab yi ñi binaa la ñu wax waxoon nañ ñaari façon niru yi mi nuru isim bañ da ko binaa dañuy àggale yeneen ñaari façon yi niru yi mi nuru xaraf bañ da ko binaa wa ka niyaabatin an al fi'li bi la taassurin wa ka iftixaarin asulaan bokk na ci li li ñuy wax niru yi isim di nuru xaraf bañ di ko binaa ñaari façon nuru yi ñuy àggale tey mooy benn bi mu ngi mooy li mu wax ne wakka niyaabatin anil fi'l yi nekk noonu ba tey isim bu wuutu fi'l bilaa taassurin ci benn aamil du ci du jeexital ci moom façon nuru gii la borom xam-xam yi tudde ashabahul istimaal yi mooy isim woo xam ne dafa jaar yoonu araf jaar yoonu araf mooy day liggéey ci kenn du liggéey ci moom araf lu ko jiit du ci feeñ mukk kenn du jaar xaraf yi wala nga di ko nasab wala lenn déedéet isim boo xam ne yoon woowu la jaar dañ koy bina nga xam ne day jeexital ci dara du jeexital ci moom wa ka niyaabatin anil fi'l mooy li ñu tudde al ashbahul istimaali mooy isim bu jaar yoonu araf nga xam ne day liggéey ci dara du liggéey ci moom loolu nag buñ ko waxee moo binaa xeeti ismu fi'l yi ngay dégg yëpp looloo ko binaa ismu fi'l yi ngay dégg yëpp ismu fi'l yi bari na ndax ismu fi'l yi boo ko xoolee moo araf ñooñu niroo day liggéey lu jiitu waaye dara du liggéey ci moom looloo ko binaa li ñuy wax shabaul istimaali yi yoonu araf la jaar di liggéey jeexital ci dara du tal ci moom baatu araf dara du ko soppi am na ñaan ñu ci joxe yeneen misaal yu xorma dañ naan ismu fi'al yëpp daa nuroog layta ak laalla xaraf yooyu la nuru layta ak laalla ay xaraf la waaye daf layta dafa yor maanaam na atamanna laalla dafa yor maanaam atarajja wa ka iftiqaarin asula ni ki noonu ba tey am na benn shibah boo xam ne moo ci mujj moom lañ tuddee ak shibahul iftiqaari <coughs> shibahul iftiqaari binaana ismu mawsul yi binaana leen ci sar zarf yi ak yu mel noonu mooy xaraf dafa néew doole boobu foo ko fekk maanaam dañ ne fi xayrihi balaa sotti dafa ànd ak leneen isim buñ gis nag balaa maanaam maanaama sotti dafa aju laneen dafa ñëwut aju ci isim boobu dafa jaar yoonu araf mooy shabul iftixaar yi nga xam ne isim boo xam ne dafa aju woo jumla iftixaar asli yi nga xam ne foo ko fekk jumla mënuñu cee ñàkk loolu moo binaa ism mawsul yi ndax da ngeen jàng ci ism mawsul bii ñëw ci kanam ñu ne wa kulluha talzamu baadahu sila faw mu am moo binaa it xeet yi zarf yi yenn yi ngay gis lu mel ne is isa xaysu ism mawsul mooy isim buñ gis boo xam ne foo ko fekk day aaju woo jumla iftixaar asli foo ko fekk nga xam ne ba addunay tukki bu jumla boobu ñëwul du sotti loolu lañ tudd ashabul iftixaar yi ndax dañu araf noonu la mel araf mënta beru moom balaa daraa sotti rek kon iftixaar la ñuru araf aajowoo kon isim buñ gis mu aajowoo jumla is isa xaysu xeet yooyu dañ ko binaa ngir loolu kon wax nañ ñeenti façon shabah yi nga xam ne ism dana ko niru xaraf bañ di ko binaa shabahul wada'i mu niroog araf niñ ko tëree shabahul maanawi mu niroog araf maana ism boo xam ne dafa niroog araf maana shabahul isticmaali ism boo xam ne daa jaar yoonu araf nga xam ne day day jeexital ci dara du jeexital ci moom shabahul iftiqaar yi ism boo xamante ni daa néew doole niru ko araf ba nga xamante ni mënta beru maanaam mi ngi ci lim àndal nga xam ne isim buñ gis nag kon mu aajowoo jumla foo ko fekk dañ koy binaa shabahul wada'i moo binaa damir yépp wax nañ leen ko shabahul maanawi nee nañ leen moo bina joxe na misaal yi sax ismu charte yeeg ismu ishaare yeeg yu mel noonu shabahul isticmaali moo binaa ismu fi'ali shabahul iftiqaar yi moo bina yenn zarfu yeeg ism mawsul yeeg yu mel noonu aywa ne woon naa leen ca bind bee weesu man lazama aslahu la yusalu amma bihi kenn du laaj ne lu tax ñu leen arab lisim ndax mooy cosaani moo tax mu ne wa mu'rabul asmaai ma qad salima min shabahil xarfi ka ardin wa sama isim bu ñu leen arab nag mooy ban mooy cosaan mooy isim boo xamante ne mucc na ci niru araf ñeenti façon niru yooyu ñu doon wax moo xam ismu bu wér la bu leer lu ma la ardin ismu bu leer la boo xamante ni arafu ragg amul ci mujj nañ koy i'rab ardun zaydun amrun bakrun wala ism boo xam ne da ca joxe misaal ism bu ragg lu mel ne sama sama du feeñ sama nag jubluwuñ ci asamaan sama luxa ci ism waaye lim mu fii dafa am solo moom la moom lañ tudd ulamaul balaaxa li ñuy wax ihaamu tadaad mooy boo ko déggee da ngay jàpp ne ardin ak sama suuf comme tudd suuf rek asamaan la jublu waaye nag sama fii luxa la ci isim isim bari na tur fukki luxa am na ci am na sax ñu ko yokk ismun wa xasbu hamzihi wa xasr ismun wala nga xasab hamzu wax simun wala nga xasr ko wax sama comme li ibnu malik wax bu ci ne mën nga koo musallas simun samun sumun lu ci nekk sama sima suma ak sumaatun boo ko boole muy fukk والاسم عم نفك لغات الاسم قد هواها قد حواها الحصر في بيت شعر وهو هذا الشعر اسم وحسب همزه والقصر مثلثات معصومات عصر kon waaye lii da ca jubloo misaal rek isim bu wér ak isim bu ràgg moo tal dégg nga wa mu arabul asmaa ma qad salima min shabaha fi ka addinoo wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa arabu mudaari'an in ariya min nuuni tawkiidin mubaashirin wa min nuuni inaasin ka yal'anu man futin mu ne fi'lu amr ak fi'lu maadi buniya dañu leen binaa ci cosaan wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya asli ci fi'al mooy dañ ko war a binaa waxoon naa lan ko moo tax kon fi'lu amr ak fi'lu maadi dañu leen binaa loolu mooy asli ci afaal yi fi'lu amr ci lan lañ koy binaa al amru mabniyun li borom xam-xam bu wax rek wala amru mabniyun ala ma yajzimu bihi mudaari'un ayaa man yafham ah fi'lu amr dañ koo binaa ci li mudaari' am di jasmo rek fi'lu amr bu mën a doon xoolal li mudaari' am di jasmo bu dee jasmo sukun nga ne fi'lu amr bi dañ ko binaa ci sukun bu dee jasmo xasab nga ne fi'lu amr bi dañ ko binaa ci xasab wala amru mabniyun ala ma yajzimu bihi mudaari'un ayaa man yafham aywa kon noonu la wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya kon fi'lu amr ak fi'lu maadi dañ koy binaa fi'lu maadi yi nag ci lañ lan lañ koy binaa ci fatxa lañ koy binaa toujours rek moo xam dafa feeñ lu mel ne daraba wala ñu nattale ko lu mel ne rama ak yu mel noonu ba des rek euh, waaw jamci jokku ci ñu damm ko comme darabu wala damiru rafa mutaxarrik jokku ci ñu sukkuun ko lu mel ne darabtu wala yu mel noonu ndax dañu bañ ñeenti xaraf yi mutaharrik di dend waaye sax dañu li gën rek dañ naan fi'lu maadi dañ koy binaa ci fatxa foo ko fekk ba ndare waaw jam'i di ca jokk ñu damm mujj gi lu mel ne darabu wala damiru rafa mutaharrik waaw jam'i ñu damm mujj gi wala damiru rafa mutaharrik jokk ci ñu sukkun ko ndax dañ ne dañu bañ xarakaat yu comme darabtu ndax boo ko waxtoon da nga wax darabatu ca xam nga kon loolu day xaw a métti ñeenti xarafe kii kii dugg ci loolu gënu ko fi'lu amr nag nee naa la ñu ko binaa ci liñ jasam mu daari am daraba boo ko bëggoon a def idrib danga naan mu daari am lii lan nañ koy jasam lam yadrib sukun kon da naan idrib dañ ko ba ki ci bu doon loo xam ne lu ñuy dagg kii gi la daa yadu nga bëgg ko jasam udu ngay wax ndax da naan mu daari am yi ci lan nañ ko jasam ñu la dañuy dagg xarafu wu ci mujjoon nga ne kon udu loolooy فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه من سكون أو حذف فعل ماضي nee naa lañ ko binaa ci damm toujours ci fatxa toujours ndare waaw jamo da ca jokk ñu damm ko wax dara bu wala damiru rafa mutaharrik jokk ci ñu sukun mujj gi damiru rafa yi mooy comme faayil jokk ci ak yu mel noonu bu suba dañ ko sukun comme li ma la wax léegi ngir bañ lu nuru benn baat ba pare te nii loo xam ne dafa mel ne benn baat ba pare ñeenti xaraf yi mutaxarrik sasaloo ci moo tax sukun dox ci diggante bi wa aarabu mudaari an fi'lu mudaari nag daañu ko li arab léegi léegi ndax wax naa la ci bind yee weesu ne la fi'lu mudaari la tudd ñu tudd ko ismu mudaari dañ ne dafa li annahu yudaari dafa nuróog ism fi'lu mudaari dafa nuróog ismu faa'il ci xarakaat ak sukun yadribu bu la neexee nga niroo nag daaribun ci xarakaat yi sukun yi fatxa moo jiitu fatxa moo jiitu fii sukun topp ci yadd sukun topp fii daaribun yadribu kasra moo ci topp lii topp ci damm moo ci topp lii topp ci kon loolu la ko niru yadribu ak daaribun dañoo niru ci xarakat ak sukun ismu fi'al wa arabu mudaari an in ariya fi'al mudaari def na ko li arab in ariya min nuuni ci charte bi bu fekkee dafa mujj ci ñaari nuun yi nuunu tawkiid gu ci sës rek ak nuunu inaas wa arabu mudaari an kon mu mudaari kañ lañ koy i'raab bu fekkee nuunu tawkiid amu ci aslam yadribu yazhabu yaquumu yantaliqu yaqra'u yaktubu ila axirihi nga xam ne kon day mel ne nuunu tawkiid amu ci wala bokk xëy na mu am ci aslan waaye sësu ci rëkk rëkk rëkk danañ gën a leeral misaalum bu ci sësut rëkk rëkk ak yooyu ni muy mel ak ak ak ak misaal dañ ko indi ci benn buntu bu gën a yaatu. ni noonu ba tey nuunu inaas bañ cee nekk. noonu inaas lu yàlla wax ci alquran wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna amma nag bu fekkee noonu tawkid da cee nekk mubashir dañ koy binaa ci fatxa lu mel ne la tajidanna bu fekkee noonu inaas da cee nekk dañ koy binaa ci sukun lu mel ne yurdi'na waaye nag burul loolu rek dañ koy i'raab wa a'rabu mudaari'an kon mudaara def na ko i'raab bu muccee ci ñaar yi noonu tawkiid mubashir nga xam ne nekku ci aslam wala mu nekk ci sa su rek rek rek noonu inaasit bañ cee nekk waaye bu ci noonu tawkiid nekkee dañ koy binaa ci fatxa lu mel ne tajidanna bu fekkee noonu inaasit mi ngi ci it comme dañ koy binaa ci sukun lu mel ne yaroona nee na ñii di ci junj benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan an nisa yaroona fi l axirati man futina bu xub bi xubbihinna fi dunia wa kullu xarfin mustaxaqun lil binaa mu ne xarfu nag moom foo ko fekk rek li mu mooy dañ ko war a binaa moo tax dañ ne sax wurtul wax mustaxaq ndax araf dafa yeyoo binaa ca dañ koy bina moo tax dañ ne ñenn ñi dafa wax ne wal xarfu laa yaxruju an xukmil binaa wala wa kullu xarfin waajibun lahul binaa araf dañ koy binaa foo ko fekk ndax maanaa yi nga xam ne dañ koy soxla ci l'arab amul ci araf mooy maanaa yu wuute yi mu war a ñëw nekk faayil ak nekk nanga ma nekk nangam maanaa yu wutee amul ci arab moo tax kon arab dañ koy binaa foo ko fekk comme arab nag dañ koy binaa toujours waaye wa kullu xarfin mustaxaqun li binaa arab moom dañ koy binaa bu leen comme waa ji tashrib nag am na ku ne wa kullu xarfin waajibin lahul binaa am na keneen ku nekk ku ne it wal xarfu laa yaxruju an xukmil binaa wal aslu fil mabni an yusakkana mu ne li ñuy binaa nag cosaan li dañ ko war a sukkuun loolu ci cosaan ndax sukkuun moo gën a waayef xaraka xaraka sukuun moo am ak xaraka xaraka mooy fatxa wala kasra wala damma sukuun mooy maska néeg sukuun moo gën a woyof moo tax lu ñu binaa cosaan dañ ko war a sukuun gën a woyof moo tax binaa ci xaraka sax foo ko fekk ci waxi arab luñ binaa ci xaraka ci fatxa wala kasra sababa ko waral lu mel ne ñaar sukuun yu nar a daje foo ko seetloo rek yu nar a daje moo tax ñu koy binaa ci kii wala boog baat boo xam ne dafa nekk benn araf xam nga benn araf bu nekk nga sukun ko day xaw wala baat boo xamante ni cosaan la dañ naan dañ koy leen arabun lu ma leen xabloog baatu ak yu mel noonu wala loo xam ne dafa nuru luñ arab rek ku lu ma leen maadi maadi ndax dañ ne dafa nuroog luñ arab ndax dañ ne maadi dafa nuroog mudaara ci ay yëf yu bari nuroo nañ ci ci nekk dana nekk si la lu ci nekk dana nekk sifa léeg-léegi ak yeneen ak yeneen ala kulli haal cosaan ci liñ bi naa dañ ko war a sukun ndax sukun moo gën a wayaf xaraka dafa dis waaye nag teewut kat cosaan lu ñu war a sukkuun moo tax lépp euh, yi ñuy binaa yëpp daa lu ci ne rek am na mën nga ci andi misaal lu ñu sukkuun waaye nag cosaan ci lu ñuy binaa dañ ko war a sukkuun ndax li ma la wax rek dafa gën a woyof teewut na mu ne woo min husu fatxin doonte da nga gis luñ binaa ci fatxa léeg-léegi fatxa moo gën a woyof ci ar kii yëpp moo tax fatxa danañ ko def ci ci façon yi binaa yëpp woo min husu fatxin wasu kasrin am na lu ñuy binaa ci kasra wa damm am na lu ñuy binaa ci damm waaye nag kasra ak damm dafa xaw a diis moo tax binaa ci damm wala binaa ci kasra doo ko dafa diis moo tax du dugg mukk ci fi'al fi'al buñ binaa ci damm doo ko gis fi'al buñ binaa ci kasra doo ko gis ndax dafa diis am maa nag fatxa woyof gi mu moo tax dana dugg ci ñett yëpp fatxa dana dugg ci <sniffs> ci yi ñu binaa yëpp xarf fi'al lépp dégg nga andi misaal wa minhu zu fathin wa zu kashin wa dam ka ayna am si anta wa saakinu kam ayna dañ ko binaa ci fatxa isim la qaama dañ ko binaa ci fatxa ma jox la ci misaal fi'al la sawfa xarf la dañ ko binaa ci fatxa ñetti façon yi ñuy binaa yëpp dañ ko binaa ci fatxa ndax dafa woyof kasra ak damm nee naa la dafa diis kenn ko dugal ci fi'al mën nga ko mën nga ko dugal nag ci lu mel ne am si mooy isim Euh, isim am si isim la mën nga koo dugal ci lu mel ne jayri isimu fi'al la ak yu mel noonu xaysu dañ ko binaa ci damma lu mal ne xaysu ak munzu dégg nga xaysu isim la munzu xarf la wa saakinu loo xam ne dañ ko binaa ca damma nag mooy lu mel ne kam wala qul wala bal wala yu mel noonu nga xaye dañ ko binaa ci sukun kam xaraf la xul ba tey niki noonu wala walla wala wala wala bal loolu mooy misaal yi nga xam ne joxe na ko wa minhu zu fatxin wa zu kasrin wa dom ka ayna am si xaysu wa saakinu kam xam nga waxoon naa la ne la cosaantu lu ñu binaa dañ ko war a ndax dafa gën a waaye fu ma tax ci fépp ci fépp la sukkun di dugg jim fi alxarf nee naa la am na ci ñu fatxa moo ci gën a woyof am na lu ñuy kasra am na lu ñuy damm waaye waxoon naa la ne kasra ak damm dafa diis moo tax du dugg ci fi'al amaa fatxa ci ñett yëpp la dugg ka ayna qaama sawfa isim fi'al xarf am si isim la dañ ko jar jayri ismu fi'al la dañ ko kasra ba tey dégg nga xaysu ak munzu isim xaysu isim munzu eh, fial sukuun mooy cosaan li kam qul bal ak yu mel noonu wa rafa wa nasba jaalan iraba lismin wa fialin naxulan ahaba mu nee nag irab def na ko baatub rafa la ñu ci jëfandikoo xam nga fee danañ lay wax ay dam ak yooyu irab baatub rafa la ñuy jëfandikoo la nasb waaye nag dana dugg ci lisim dana dugg ci fial isim mënees na koo nasb mënees na koo rafa fial ba tey ni ki noonu naxwu ci misaalam yi lan ahaba ragaluma zaydun man ngaa wax lan ahaaba zaydan man ngaa wax zaydan zaydun yahaabu rafaa nga fi nasab nga fi wal ismu xat xusisa bil jarri kama xat xusisa al fi'lu bi an yanjasima amma nag jar ci ism rek lay nekk kenn ku dugal ci fi'l wal ismu xat xusisa bil jarri kama xat xusisa al fi'lu bi an yanjasima comme ni nga xamante ni ba tey jasam ci fi'l rek lay dugg kon i'raab rafaa ak nasab dana dugg ci fi'l dugg ci lisim ñaar yëpp bu dee li nag isim dañ koy jar jaral ci isim dong lay dugg jasam ba tey ci fi'al dong lay dugg euh, mu andi nag bayit wax ne dañ daan wax ne ci gën a yomb ci kii la bokk mu ñaari bayit yi farfa bi dammin mu ne mandargam rafaam cosaan mooy damm wan siban fatxan mandargam fatxam cosaan mooy nasab wajur kasran mandargam jasr euh, jar cosaan mooy kasar lu mel ne zikrullahi abdahu yasur zikru dafa dafa damm laahi mudaaf ilayhi dafa dafa jar kasra abdahu dafa nasabe fatxa yasur wajjim bi taskiinin bu fekkee nag da ngaa bëgg a jasam mandargam jasam cosaan mooy sukuun comme li ma la wax léegi lam yalid wala mu yulad wala mu yakul lahu kufuwan ahad wa xayru ma zukriya bu lépp loo xam ne bokkut ak lii ma wax nag xam na ne day wuutu maanaam boo gisee fu ñu war a fatxa nga fekk fa leneen xamal na du ko faa wutu boo gisee fu ñu war a eh, jasam nga fekk fa eh, kasra nga fekk fa leneen aw xaraf wala yooyu xamal ne da ko wutu lu mel ne jaa axu bani namir misaalam yi abwaabu niyaaba yi moom la ibnu bi njëkk nga xamante ni mandargam cosaan bi mu waroon a bi nekk fa waaye leneen moo ko fa wutu gis nga misaalam jaa axu faa'il la lu tax damme euh, ca waxu lu tax waxu la ne fa rafa dammewut rafaawut damm axu waaw gi moo ko fa wut ndax daañu la wax ne la axu ci asmaul xamsa la bokk wala asmaul sitta ca waaw lay rafaaye banii ba tey feeñaat na ci yaagoogu yaa gi moo koy wutu ka jaa axu bani namir kon mooy lépp loo xamante ni daal gis nga ne bokkut li ñu wax ci cosaan li mooy mandarga leeraa bu cosaan nekku fa xamal ne dafa lenn ci buntu ab waabu niyaaba niyaaba rek moo moo fa wutu abwaabu niyaaba yi nag dañuy andi bi ci njëkk xam naa yi ci des ñu bàyyi ko ci bind bi bi di ñëwaat ci ci ci ci dars bi di ñëw abwaabu niyaaba yi bi ci jiitu mooy li ñu tuddee asmaul xamsa moo ci jiitu asmaul xamsa mooy am na ñu ci yokk nag ñu koy wax asmaul sitta abun axun dana ko leeral dana ko leeral léegi incha allah <laughs> abun axun xamun kazaaka wahanu abun axun baay axun mbokk xamun mooy ab goro xanun bokk na ci zu mooy borom nangam famun ba tey bokk na ci mooy gimiñ ci sàq buñ dindee buñ gi moo tax mu ne ñu àndi ci rek benn bayit li cees ñu àggale ko ci bind yi cees asmaul xamsa mooy bunt bi njëkk ci abwaabu niyaaba yi yi nga xamante ni ay xaraf ñoo fay wuutu mandargam yu mu waroon a leeraabe mooy moo fay wuutu fatxa wala damm wala kasra wala yu mel noonu warfa bi waawin abwaabul asmaal xamsi yi waaw lay rafaaye waaw moo fay wutu damma warfa bi waawin wan sibanna bi alif alif moo fay wutu fatxa wajurur bi yaa in yaa lay jarre moo fay wutu kasra maa min al asma asif mooy tur yi nga xam ne maa ngi koy bëgg a indil mooy maa asifu laka min haajil asma tur yi ma lay bëgg a tur yooyu mooy ban bari min zaaka bokk na ci tur yooyu zu in soxbatan abana zu bokk na ci tur asma asma al xamsi wala asma al sitta yi li yunfiq zu saatin min saatihi waaw googu la rafaay dégg nga in in kaana za maalin wa banin za googu la nasabe maratu bi zi maalin zi googu la jarre waaye nag zu nee na in soxbatan abana bu fekkee zu dafa yor maanaam saaxib jaa a zu maalin raaytu za maalin maratu bi zi maalin waxuñ nag zuug mawsuliya déedéet loolu taxul di wax zuug mawsuliya taxul di wax dana ñëw ndax moom zuug mawsuliya moom moom ala kulli xaal taxul di wax fa imma kiraamun muusiruuna laqituhum fa xasbiya min zu indahum ma kafaaniya wala min zi indahum loolu zu mawsuliya waaye zu gi yor maanaam saaxib la kon zu bokk na ci asmaul xamsa yi wala fa mu xayzul miimu minhu baana famun ba tey bokk na ci asmaul xamsa yi waaye nag miim nga du ci nekk da dagg miim nga waaye vamun bu ci miim nga nekkee nga ne haza vamu zeydin wala vamu amrin wala vamu nangam déedéet vamu googu da nga koy leeraal ci miim ga waaye nag bu na ci miim nga génn vu zeydin fa zeydin wala fii zeydin miim nga da ci da ci dañ force arab yi wax ne yaa abati dirk faaha qad xalabani fuuha laa taaqata lii bi fiiha amma nag bu ca miim nga nekkee dañ koy i'raab ci xaraka yi ci mujjug miim nga comme lu ma leen li waykat bi wax ni kal xuuti laa yarwihi shay'un yulqim yushbihu dam'aana wa fi lbaxri famu kon moo tax famu gi bala ca sañ a bokk rek miim nga da ci génn asmaul xamsa danañ ko àggale mu gën a leer boo gisee mu njëkkee ñaar yi ndax bu ci ndax am ay sart dafa njëkkee zuu ak famun ndax zu sart bu njëkk ba mooy sart bi ci nekk mooy zu gu yor maanaam saaxib lay tegtale saaxibu lay tegtale va mu nit sart bi mooy da ngay dindi miim gi doo ko mën rab yi waaye nag des na yeneen daañu leen wax ci bind bi ñëw ne abun bokk na ci axun bokk na ci xamun bokk na ci xanun bokk na ci waaye boobu bu ci nekkit ba tey am nga sa sart am na nuñ ko baaxoo leeraabe wa billahi taala tawfiq wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم